xam euh, boo déggee ma ne on a un premier ministre très fort euh, euh, projet de loi boobu. Ah voté guñu ko mais mais buñ ci dugg. non non may ma rek non non man maa ñëw rek. projet de loi boobu duma ci wax. parce que projet de loi boobu voté guñu ko mais gis nañ euh, euh, premier ministre bi. euh, en plus des pouvoirs à lui conférés euh, par la par la constitution dégg nañ ko mu wax sur la politique extérieure euh, ba mu nekkee à à l'université gis nañ ko muy recevoir ay ambassadeurs alors que euh, la constitution xaw ma ban article la te xaw ma cinquante et un la xaw cinquante la euh, loolu ce sont des pouvoirs du du du président de la République gis nañu aussi dans les décrets de répartition des de de de services ñuy préciser ne euh, ci ci document yëpp léegi euh, nu mu tudd euh, est placé sous l'autorité du premier ministre ma foogoon ne boo nekkee chef de gouvernement que ce soit le ministère des finances que ce soit tous les postes les ministres et ils sont sous l'autorité du du premier ministre pourquoi cette précision là. tu as le livre de Ejas ouais. de Doudou Ndoye c'est très bien voici la constitution telle que révisée par Ousmane Ismaël Madior et la dernière mise à jour. avec le professeur Maïssa Diakhaté mu ngi ni loolu jarul ñuy ay articles di ko siri lee am ba am mooy premier ministre dafa am yoon bés bu dépassé yoonam président de la république moo koy régleel boppam mm-hmm. xamul lu tax dafa am ay pouvoir président de la république boo xam nii kenn du ko able kenn du ko dénkaane sama benn nijaay dafa ma doon wax naan mais boobu temps ñoom xam nga dañ daan sol ay yére pantalon yi daaw ñu ko sol ay caay lañ daan sol mais dafa am ñoor xam nga ñoor. Mm-hmm. buum la bu ñuy def ci def ko defal ko yoon après takk ko. Mm-hmm. yoon yooyu ñi ñoor yooyu daan dañ ko def mèche mèche làmp mu ne sa nit borom kër dénk ñooram jabaram ñoor bi takk sa tubéy boo ko dénkee sa jabar di nga bëgg génn doo génn bu fekkee nga am ñaar doo aye ji. moo tax am na ay pouvoir yoo xam ne président de du ko dénk nit te mënu ko dénkaane. mënu ko dénkaane. waaw mënu ko eh, dénkaane bu ñu bu ñu tënkoo ci constitution. donc loolu euh, nga wax ne que am na ay pouvoir am na jël ay décision ci lii loolu mu jël ay décision nag du point de vue militaire et sur les accords yi nga xam ne pour mu valide il faut assemblée bi prononcé wu ko ratifié ko. président dina wax xaatim ko promulgué ko pour mu nekk au-dessus de la constitution ma ne comme mu ngi àgg foofu société civile bi jot na ñoom ñu taxawaat de ah normalement ça doit être l'une des premières marches et rassemblements à s'organiser c'est-à-dire ah parce que on ne peut pas permettre au ministre de le premier ministre bu amul ay pouvoir régalien yu ko permettre muy wax ci armée bi di wax ci euh, yi nga xam ne du cëram di ko bàyyi muy dem ngoonte foo jëm il faut arrêter. après ah, dafa wax ci armée bi. non waxum yow xam nga ne wax na wax nañ ne wax na ci armée bi yaa ma gën a xam bind ah. <laughs> comme moom moo gën a xam xam nga quand on ah mooy liñ ne dafa gis nga il est di bañ. que chacun d'entre nous prenne xamee dara du ko nëbb. parce que cacher la vérité c'est mentir moo laaj loolu. donc loolu non il y a aucune vérité à à. non non attends attends non Maïmouna xam nga ah, Maïmouna Maïmouna entre nous nous avons commencé une émission boo xam ne bii euh, c' y a même certains peut-être que est une confession tu as commencé par dissonante non alors que man ñëw ma pour loolu moi je veux c'est pourquoi je donne des conseils au premier ministre bu bëggee jàmm am réew mi am jàmm na yem ci liñ ko sant bu yemee ci liñ ko yónni def ko ci lu bu baax réew mi dina dox ñoom dinañu réussir dinañu mën a utaat leneen mais bu fekkee ne dafa yàkkamti ba war jël lu mu moomul gis nga loo bëgg bëgg a xeex xeex xeex amoo droit dem dajji fii ñu denc arme yi fii jël fa mitraillette pour rey nit ngoonte ñaata dégâts ngay def yow ngoonte il faut la l'arrêter je di il faut que le premier ministre yem ci cëram bés bu ñu ko loi bi joxee nag ne ko lii dénkaat nañ la ko mais mu am sañ ñu def ko pour terminer sur cette question